politique la boo xamante nii euh, am na fi loo xamante ne nii dafa rare pour nga gis parti politique bu ko am waxuma nag bi ñu jotee pouvoir bi quoi mais bi ñu nekkee si opposition bi en réalité bi ñuy ànd ak euh, bi ñuy ànd ak euh, beneen parti de de l' opposition sax vraiment ils n'avaient pas besoin de te loolu ñun wax nañ ko fépp expliqué ko parce que toll nañ foo xamante ni Sénégalais yi sànq li ma la waxoon dafa am politique boo xam dañu paroon pour débarrasser wu ci gëmoon ko quoi en indi woon xam nga euh, xeex système bi jëlee ko fii xam nga taxali ko tubaab yi xam nga dindi armée française indi une révolution cest à indi idée wu révolution ak ak seen conception patriotisme xam patriotisme en réalité mooy ku gëm sa réew parce que d'habitude politique ni ñu ko xamee woon mooy benn waaye mooy am xaalisam dem bokk ci parti bee dóor fa weccit dem créer parti am xam nga léegi nag ñoom en réalité dañu ñëw indi la don de soi benn ba pare indi fii politique bu raar mooy parce que jël nañ sax fukki dërëmu jaagatu caaf yi jaaykatu orange yi association maire yi jaay ci marché bi teg seeni i teg seen i affaire ne peuple bi yéen yéen doxal seen seen seen seen parti parti bi seen parti la li ñuy doxal ñun c'est pour vous ñun amuñu Ousmane Sonko dafa taxaw ne moom amul fenn fu muy dem di ut lenn làqatul ci benn euh, multinational làqatul ci benn moom laa lay expliqué ma lay expliqué carrément lay wax cest à li ma bëgg nga comprendre ko mooy xam nga gis nga en politique tous les erreurs se paient day metti après te loolu laay expliqué mu lay wax quoi nit sooy wax da ngay wax te yàlla tax dama ne en réalité sénégal yi ñoo def ci politique créé def ànd ak Pastef def lu musul am ci histoire politique gu Sénégal ay fukki dërëm juróomi dërëm. ay mason ñu tànnal nit seen bopp. xam nga dama ko wax chaque fois ma ni Senghor moom tubaab yi ñoo ñu ko tànnal abdu Diouf moom moo ñu tànnal Senghor imposé ñu ko maanaam Senghor moo ñu tànnal Abdou Diouf imposé ñu ko Abdou Diouf. bi ñu imposé Abdou Diouf Abdoulaye Wade moom daf ñu forcé boppam moom 27 ans d'opposition comprendre mais mais Macky Sall daf ñu nax dafay yoon di làqatu ci ginnaaw Abdoulaye Wade ba jékki-jékki rek moom moom jëkk ne pëtt juddu suñu kaw mais Ousmane ko peuple bi ñoo ko tànnal seen bopp c'est-à-dire loolu mooy différence bi ko au donc léegi li xew en réalité li xew ngay gis mu xew dafa am histoire am fu mu jaar c'est-à-dire xëyul rek ni cëpp li mag ñi naan man ci dama judd ci far da xëw ma rek ni cëpp donc loolu dafa am lu ko fi teg am fu mu jaar am lu fi nekk loolu nag il faut ñu xool lan moo waral coow li nii ak lan moo indi lii je reviens si li ma bëgg expliquer loolu yëpp en réalité li ma bëgg wax yëpp boo booy dégg bu baax a baax mooy politique bi Pastef doon def début bi ba léegi bu si <coughs> bu ci continuer bu ci continuer woon sax ci opposition bi du soxla kenn bi mu nekk ci opposition bi. parce que le peuple non le peuple même ci coalition Diomaye président non le était avec euh, coalition Diomaye président peut-être rafetal la woon rek mais damaa gëmoon ni terewul woon aussi ñii dañu doon jël pouvoir bi <laughs> c'est-à-dire attends coalition Diomaye c'est vrai ñëpp jàpp nañ si et mais tere bu ñëpp toogoon seen i kërit ci politiciens yi ñii dañuy jël pouvoir bi nañu waxante dëgg rek parce que peuple bi ñoo def choix doon voté ak benn vote détermination boo xamante ni di génn di xeex ñu leen ñu tëj ñu c'est que loolu il faut man dama gëm ni peuple bi ñoo changé réew c'est pas les politiques dama gëm ni peuple bi ñoo changé réew c'est pas les politiques te Ousmane il était plus plus proche du peuple il avait pas le discours d'un politicien aara rafetal wax il avait pas les habillements de politique yor woon discours à la tubaab il était un dafa nekkoon benn sénégalais quoi boo xamante ni moom dafa ñëw indi naxaru askan wi exposé ko li sénégalais yi soxla di ko jooy ay panafricanisme révolution la indi. man révolution ñun dafa ñu ko jàppuñu ko politique sax révolution lañu ko jàppe woon. d'accord donc kon tey bu ñu accès fii nii ba nekk xoolaat bu baax a baax baax lan moo xew am na lu déraillé ci raay bi quoi. Mm-hmm. am na benn chaîne bu ñu toogee ak fi ñu jaar ñëpp ay 87 personnes dee ay nit ay milliers de personnes ñu tëj leen ci kaso yi ay xale yu ndaw ay jafe-jafe yu garaaw ay nit di def cest à problème bu nekk dund nañ ko Sénégal ñu toog ba ñi ko fi def waa APR li fi def fii ci réew mi fii nii nga xam ne ci histoire politique mësta am ci ñaawteef ci ci détourner bien public. ci toroxal nit xaaral damay daaneel ci toroxal nit. ci toj-toj ci manque de respect. ci ot loolu yëpp bu ñu demee ba ñoom ñuy toog di taxawaat di mobiliser wu bay. Macky Sall di woote wax ba ñuy am yaakaar kon Ousmane Sonko ak Diomaye nañu xoolaat seen doxalin. man loolu laa lay wax. d'accord alors Samuel euh, muy ci li nga xamante ni euh, ni ngeen beroo dem seen bopp mën nañ ko jàppee trahison euh, ñi nga xamante ni ñoom ngeen àndaloon ñu jàppale leen ba ngeen jël nguur gi bu ngeen demee ba tey ci élection législative yi ngeen bedd ñooñu dañ koy jàppee trahison wala. waa traison mooy lan mooy kii maître Moussa Diop mi génn ak euh, l'ancien DG xawma euh, sold bi loolu est-ce que traison la si sa aqulaay taalaa ndax Pastef trahir nañ kenn Pastef mosuñoo trahir kenn au contraire Pastef dañ leen a trahir a trahir a trahir trahir trahir ba ñu dem nag jël seen destin en main c'est ce que le président Ousmane Sonko a fait tey ñëpp gis nañ élection 2022 li fi xew élection locale ñu fal fi ay maire ñu génn a taxaw ne ñun Ousmane Sonko faluñu Pastef faluñu. yéen yéen a leen fal Pastef. kii ku ko fal maire Yoff bi kan moo ko fal Seydina Issa Laye kan moo ko fal. moi je me très bien on s'est battu ñun ñu féete woon fii xeexal ko ci kanam Abdoulaye Diouf Fall Abdoulaye Diouf Sarr ñu jox ko 3 milliards budget campagne ñu wàcce ko. Abba Mbaye Saint-Louis ñoom ñëpp ñu taxaw wax lu leen neex. ñu demaat ci coalition yeewi Wallu sëñ Modou baar Dolly sëñ Bara Dolly bi tey li tax mun tey fo ba mu paree di saaga Ousmane Sonko dafa ñëw ci intercoalition Yewwi Wallu lañ ko dugalee liste tubaab bi cinq cinq députés yi ci la jàllee waa PDS yi ñoo xamante ni deewoon nañ bañ suul leen ñu def intercoalition bi ñu dem amaat vingt quatre députés loolu budul Ousmane Sonko kan la ci réew mi te ñoom ñëpp Sénégal gis nañ seen taxawaay diggante dem mille vingt léegi yàggul. tey nag président Ousmane Sonko jël courage am à mu ne bañeeru Pastef laay demee éliminé wu ma kenn ignoré wu ma kenn dàqu ma kenn waaye nag bañeeru Pastef la ñuy demee bu ko defee day am fil conducteur mooy lan pastif ku ci ànd nag xayrun ñëwal ñu dem ku ci àndul bàyyi nga dem jël say responsabilités yow boo fekk bu fekkee da ngay dem ci beneen coalition nga dem ci beneen coalition. loolu lan lay firnde ajara mm. mooy wane ne Pastef réew mi leen ñor. mooy war na ne le président Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Faye réew mi moo leen ñor tey am na ñu nekk biir Pastef ils ont donné corps et âme ils ont sacrifié toute leur vie tey amuñu benn post parce que Ousmane Sonko def na réew mi kenn du ko paasoo kenn du ko euh, euh, euh, seddoo man mii di wax ak yow samay mbokk chaque jour dañu may woo lan moo tax joxaguñ la dara lan joxaguñ ak li nga sonnee may leen affaire bi du demee noonu bërki démb bañ nekk élection législative dew ma Kaffrine pour postuler parce que jàpp naa ne ñun waruñ ñoo gis ay xëccoo ay poste ay xuloo ay poste parce que dañoo woote rupture dañoo woote le don de soi pour la patrie kon donc am na ay taxawaay yoo xamante ni dañ ko war a taxawee te loolu la président Ousmane Sonko wane dama am lu ma naqari nag parce que grand bi Karim il s'est beaucoup battu pour le Sénégal heure bii da ko waroon fekk ci wotu Cheikh Ahmad Diagne ñuy doxal parce que combat dafay am fin mais grand erreur boobu nga def sa combat dafa amul fin waroon nga fexe ba bu passif ñooy du dara da ko xeex. tu t'es battu pour le peuple. mais Karim ci combat ba tey de. ma non Karim moom laa ma ne combat dafa am fin. keroog ba muy lakk drapeau France bi ak xaalis bi fële place de l'indépendance j'étais là-bas li na fa kur grenade lacrymogène dem te boobu gars yi xalaatuñu woon sax ay Pastef dana xeex loolu ay quatre 2018 la woon xaw ma 2017 il s'est battu mais xeex day am fin parce dafa waroon a fexe ba ñëw bokk ci liy defar réew mi parce que moom bu fekkoon dafa tey bu gars yi bu amee nit ko mën a déra war a déraper moom war na ko mën a rappeler à l'ordre pour njëriñu Sénégal moo tax ma ne peut-être que dafa wàcc yoonam parce que tey jii da ko waroon na fekk ci wut waa Pastef ñuy doxal réew mi. comme ñeneen ñu mel ni moom parce que Sénégal nit ñi dañoo xeex pour affaire bi changer nit ñi dañoo xeex ngir bañ nooteel. tey 54 pour cent ñuy wax Pastef amul 54 pour cent mais sénégalais yi ñoo voté utile. sénégalais yi ñoo bañ nooteel. sénégalais yi ñoo bañ Macky sàll def leen ay jaam ci biir réew mi. moo tax sénégalais yëpp booloo xeex pour que ñoom ñu jóge fi. léegi nag comme ñoom. dóor nañ leen benn bal ñuy lappi lappi ci élection euh, présidentielle yi passé dañ leen dajale waat xam nga président Ousmane Sonko du xeex ak benn nit. waaw da leen dajale mat 100. très dama dama may déglu. waaw waaw dama ñor. bañ mat 100. Ousmane Sonko xam nga Bougane fi la nekkoon di lappi lappi ak ñoom Thierno Bocoum ak yooyu xam nga ba léegi Ousmane Sonko tontu leen léegi nag comme ñoom ñëpp dajaloon nañ en coalition ba mat nañ 100 nag. dinañ ci ñëw coalition voilà la Ousmane Sonko di ne lépp dëgg la. le 17 le 17 dinañ xam ne dinañ xam ne lépp dëgg la. dinañ a yaatal. bon non mais ma rek très rapidement. non mais pas uh-huh. ok dafa wax ne maa koy de respect merci beaucoup si li ma interpellé noonu mais juste pour expliquer dafa ni li mu wax quoi dafa ni Karim. dafa heure yi waroon na waaw dafa heure yi waroon na fekk nga nekk ci wetu Cheikh Omar mais xeex day am fin mais en réalité da ngay soo waxee loolu parce que ci da xamul Karim lan la doon xeex ak kañ la jug di xeex man Ousmane Sonko ak Pastef dañ maa fekk ci yoonu xeex bi dañ ma cee fekk dugaluñu ma ci. c'est vrai voilà Ousmane Sonko ñun dañ ko doon téye sax wax ki wàccal nga xeex ci mbedd bi mu naan man du ma nekk martiru kenn. vidéo yaa ngi fi maanaam coow lu yëpp bi mu commencé mi bi tax sénégalais jug moom mu xataraay mooy bi ñu duggee ci kaw affaire Adji bëgg mu leer sénégalais xam ko man charia laa gëm Ousmane Sonko xeexul charia man damaa gëm constitution Sénégal alxuraan la war a nekk man discours Yàlla Muhammad laa gëm Ousmane Sonko xeexuloo républicain la léegi su ma jeexalee xeex bi ci république bi man maa duma war li ma sama samay principe demal nga xool samay discours y a dix ans ci ginnaaw sama discours mosul changé man xeexuma pour ay homme politique politique bii nii gëmuma ko dafa fekk bi ñu dajalee politiciens yëpp Ousmane Sonko ci tane moom laa ci gis mu tari alxuraan feri iji jàng waxtu yi sell ma gis ci moom tuuti diine moo tax ma ànd ak moom ne kii moo tane ñii ñuy jiiñ faramason mais gëw ma politique Ousmane ko carrément service libre la ñu tegal ma sàngara tegalaat ma sàngara tegal ma meemu forox jullit la ma naan mu forox Ousmane Sonko meemu forox la comprendre nga. voilà jërëjëf alors euh, ñu ngi ngeen demal seen bopp mbaa du ngeen ci wet ak coalition yi nga xamante ne daje na ñoom ñëpp déjà dafa am sur ma bëgg rebondir rek dafa dañu utiliser benn moo léegi trahison dama bugg nga nga nga nga ko s'il te plaît rek mm.